parce que doon naa la wax ni président Ousmane Sonko mënul dem ñu koy yóbboo ko indi ci loo xam ne ay waxi kese la. Mhm. delluwaat tamit nit boo xamante ne da ko woo muy citoyen boo xam ne lambda la. Mhm. comme beneen citoyen sénégalais Casamance ci Sénégal la bokk. nga di mhm. ko woo heure boo ko wooyee fitna am coow am xeex am. parce que ñàkk dem procès bi gis nañ Dakar xëy na. bu doon problème naroon na am tey euh, dina nekk euh, loo xam ne dina euh, dina metti daal mhm. tey yàlla def na tey coow lii te Sénégal yëpp tàkkoon tey bu ko fokk fekkoon Dakar lan la ñuy wax mhm. dañ ne naan trouble à l'ordre publique moom moo ko indi mais yàlla def na ni xëy na la am Ziguinchor sax xëy na fa la ko sunu borom def mu fekk ko fa mais bu ko fekkoon Dakar tey musiba dina am. Mhm. te terewul ba ay bakkan tuuru nañ ay xale yoo xamante ne tey xamuñu sax buntu àdduna xamuñu dara. Mhm. ay xale yoo xam ne ay quatorze ans. ay mhm. treize ans ay quinze ans boobu ba tey bu ñuy dugg ci mbiru ngor bi dugg ci tamit xeex bi nga xam ne amoon na jour procès le seize xale yoo xam ne xamuñu sax lan la ñuy dox ngay dox rek bal dal ci sa kaw. Mm-hmm. loolu nekk na lu métti te président Ousmane Sonko wax na ko waxoon naa la lool nee naa la nit koo mënta am sécurité bu ko woo. Mm-hmm. parce que nee na moom moom ci boppam. convocation bu ñu ko mën a ooyee pour mu ñëw sax envoyé ko donc moom il n'est pas obligé mu ñëw ci loo xamante ni gaase nañ ko te moom loolu mucc na ci. Mm-hmm. ñu toj otoom te loo xam ne borom day dem. koo xam ne bañu maa dem damay dem mais booy dem tamit. fitna ak musiba mu ngi ci yoon bi. Mhm. kon toog jàmm am moo ko gën ba keroog ñoom ñu décider pour moom mu ñëw dans le mhm. mu dem parce que benn Sénégal nag yebeewul noonu tey justice réew mi ba tax buñ la wooyee doo dem mais ñenn ñi dañuy déjee benn nopp wax naa la loolu nga nit boo amee farata xam li ngay def. Mhm. lépp looy def rek def ko ci temps ak heure. parce que tamit toog Casamance président Ousmane Sonko war na parce que foofu la dëkk. nit ku nekk fa ngay wuyoo fa ngay voté fa nga dem ba nekk fa maire amul benn occupation lu dul maire ville euh, doon maire Ziguinchor. Mhm. kon donc bu demee Ziguinchor war na parce que am na ñu naan président Ousmane Sonko dafa daw dafa lii mais ki nga xam ne même bu dul procès dafa am dara xewul mu ngi ci liggéeyu maire mu ngi Ziguinchor donc lu ñuy gis ne sax famille fa la nekk fa nga nekk dem ba bañ fal la fa maire mais ndakaar fii ñëpp dañ fi wàlliyaan rek ñëw fi. Mhm. waaye nit ku nekk. li ñu naan ku wàlliyaan sa dëkk tëggul te gis nañ tamit xale yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko nee nañ ku wàlliyaan sa dëkk tëggul mm-hmm. ndax koo gis rek mu li ñu naan doomu àll àll xamu ko moo tax xëy na ba mu demee Ziguinchor taxawaay ba mu am xam nañ ni foofu moom doon cité kër góor gi nit tamit dafa am loo xam ne dangay dem ba da am jomb jomb am na rus mm-hmm. parce que nee na ma am na yoo xamante ni tey dem na ba ay dëkkandoom di ci tuxu parce que mënatuñ nekk ci jàmm cité kër góor yi. Mhm. te xëy na dem Casamance muy mën a nekk jàmm ci ñoom nekk ci jàmm ci moom parce que foog naa ne ba mu nekkee foofu xeex am na fa te toujours xeex mi dañ koy provoqué ci loo xam ne nit a ngi ci këram génnul doxul gendarme taxaw wala policier taxaw sànnante grenade bi coow li ñun xamuñu lan moo waral loolu war a mën a nekk ci même réew parce que réew mi tam dafa war a am jàmm. Mhm. jàmm la ñu soxla ki nga xam ne boo ko wooyee ci jàmm woo ko ci fulla dina la wuy ci fulla mais lii procès bi li ci lalu ñëpp ngi ci teg seen bët ñëpp xam nañ ko. mais moom mu ngi wax ni buñ ko tegee ci yoon maanaam ñu war kaaraange gi ci war ba nga xamante ni mu mën a wuyu buñ ko defee dina wuyu donc mënuñu xaar euh, procès le 23 bi euh, Ousmane Sonko ñëw. Chérif nee woon naa la keroog dara du am. Mhm. jàmm rek mooy am parce que ñi ñu doon wax dañuy jàpp Ousmane Sonko nee naa la fa ñuy xool ba jàpp Ousmane Sonko foofu lu bët tegoo ko fa. Mhm. wax la lu leer. ñaata at ma la koy wax. Mhm. boobu ba tey lu ñu tenté pour jàpp président Ousmane Sonko rek loolu day nax saay. léegi mbiru Ousmane Sonko dafa laxasu baatin parce que moom ci boppam wax na ko nee na ay nit dañ koy woo di ko di ko ñaanal ci lu mu xam ak ci lu mu xamul fii laa toogoon wax la ko. chéri mhm. am yoo xam ne dañ koy def pour moom te moo tax mbir mi dafa laxasu baatin moo tax nee naa la képp ku ci dugal loxoom. am na ñoo xam ne tey bu ñu xamee ne yow mii sa loxo ci biir wala yaa ngi taq ci biir. Mm-hmm. muy ku mu mënta doon mooy yaa ngi ci danger bu rëy. d' accord alors ñu jël suñu premier téléspectateur bi ne ci ligne salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct sur Dakar. Eh, yàlla na yàlla dolli ñaan yàlla yàlla nangu ziar bi. amiin yaa rabbi. maa leen ziar yow soxna sañi moomu. ñu ngi la delloo si bu wér. maa leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaan jàmm di sàkk ci yéen. jërëjëf amiin yaa rabbi. Euh, may wax dama bëgg a participer ci émission bi. yow la ñuy déglu yaa ngi en direct sur Feeling Dakar. ah ma leen di wàññi kër waaw waaw ma ne ma la may may ziar. sëñ bi ñu lay déglu xaw ci jamono ji. waaw. ma leen di waxal ne Ousmane Sonko. Mhm. mën naa ne ñun waa. Europe ñëpp moom lañ àndal ñu ngi koy ci gannaaw jàppale ko ci la ñu mën si képp lay kattan. Mhm. waaw waaw jàppale si képp lay kattan te xam ne lañ koy teg dafa metti mhm. te réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. ku ne am nga ci part. kon Macky Sall ni mu bëgg yore réew mi moo xam moom Moussa Moussa Serap Moussa Fall dañu bëgg def réew mi ja dëgg du yoon. Ousmane Sonko nag nañ ko jàppale lañ man suñ képp lay kattan. maa ngi déglu tey am na benn waaye bi wax benn affaire ma jox ma jibril nan la tudd. Mhm. mais kooku li muy wax noonu c'est dans c'est dangereux. waaw mhm. ah. c'est très parce que journaliste yi am na yoo xamante si war nañ ko mën a moytu. Mhm. am na yenn question yoo xam si war nañoo wane ni que question doomu aadama. waaw ah. ab journaliste yooyu doo dégg rek mbedd mi àll bi li ñuy wax nga dégg dégg sa wàll ñuy wax rek nga toog ak nit di ko question wala ko laaj parce que sax xel war naan da war a naaj ci loo xamante si. bu doon li ngeen dégg ci public ñi ngay wax ku ne naan Ousmane Sonko daa daw daa daw yow nga toog di ko laaj jël conséquence naa ko lii ak lii yow dëgg du yoon. d'accord seen njàng war naa pensé li ñu koy def métti nañu ba ci kanamu yàlla. métti mhm. nañu ba ci kanamu yàlla parce que ñi wax Ousmane Sonko daa daw ñëpp li bëggoon mooy Ousmane Sonko toog kër góor gi gars yi fekk fa lem ko yóbbu ko loolu la ñu bëggoon. moo tax ñu naan daa daw daa làqu ji daa dugg fii génne bi ñu nekk ci wax jërëjëf am na solo jërëjëf man soo ko am na droit am na droit dem Ziguinchor parce que mooy maire Ziguinchor te am lépp nga ko. ñu ngi kontaan ci sa woote bu baax ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ ci sa woote jërëjëf. merci beaucoup am na plein droit dem jërëjëf merci beaucoup. am na plein droit dem fa. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci sa woote. luñ mën a lépp luñ mën a seetloo nag mhm. dañ koy def teg ko ci yoon. Mhm. jërëjëf merci beaucoup nit ku baax la la sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bu baax a baax jërëjëf ñu ngi kontaan sa woote jërëjëf. waaw ñu. salaam. sëñ bi bi ñu ngi lay ziar yaa ngi en direct sur Feeling Dakar. Ah? ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi en direct sur Feeling waaw ñu ngi leen di jàmm di di leen ñaanal yàlla may la wér gi yaram. amiin amiin yaa rabbi di ñaanal ñëpp rek. yàlla defal ñu jàmm te yàlla sàmm nu sàmm askan wi. bala may dem dañuy gërëm xalifa généralu murid yi ci déclaration bu def mhm. def yónnee mhm. mhm. que réew dama wax ne ñoom seen kàddu moo gën a kawe sama kàddu man ñun waaye nag dañoo yor njaboot boo xam ne léegi nii dem nañ ba am ay sët kon suñu njaboot gi lañ bëgg jàmm am. ci mhm. réew loolu rek moo tax je sais que ne loolu moo tax ñu woote à tout moment pour apaiser le climat. Mhm. mais président Macky Sall dafa comprendre gul koi man je sais que ne comprendre gul jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Mhm. parce que réew amul jàmm nooy liggéeyee. soxna si xoolal chantier yi Macky Sall yor rek chantier yëpp mënul sax feeñ ndax xuloo xeex. ak yàq ak tasaak lépp te nit ki ma xasee ba mer mer na rek. Mhm. xale yi bu ñuy yàq ni dañoo mer ba pare gis ñu ku leen teg ci solution. Mhm. te solution dafa war a am. Mhm. réew mi il faut mu abaisser climat bi jàmm am bu ko defee nit ñi mën a liggéey mais jàmm bu amul lu nit ñi liggéey sama sëriñ sëriñ. président Macky Sall moo war a dina si xelam xam ne lii ma gis nii mille neuf cent soixante ba léegi gisuma ko musuma ko gis chaque jour lakk daal dóor damm rëy. dóoral demal surtout Macky Sall communication traditionnelle yi ko wër dóoral demal ree rek ngay dégg mhm. ah man de dénoncé naa ko ci rajo yu ak ay télévision parce que ñun wax dëgg yàlla noonu ay mag lañ lekk pour ñu xale mhm. fanweeri at ak juróom-ñaar bu ko liggéey ci ak at nga amoon du doon xale mhm. président Macky Sall ne delu si xalam te après ce climat bi gis nga gars yi di wax dóoral demal ana Ablaye Wade dégg nga